saa yi ñu defee vidéo yi mu doon vidéo yoo xam ne di ngeen ko njariñoo je pense que Antoine Diome temps yële passé biñ fi naka la waxee simuler simuler seen euh, attaque attentat de bus boobu ba maanaam seen wax yu dul dëgg yi seen fen yi àdduna bi yëpp génn leeral ko bokk na ci sax ndeysaan ay taskatu xibaar yu nekk ci benn euh, tasukaayu xibaar boo xam ne kenn la ci ñoom waaye waxoon nañ ko ne ay vidéo am na te léegi gis naa macha allah video yaa ngi law fépp ci dëkk bi waxoon nañu Antoine Diome ne alkaati yi nga xam ne ñoom ñoo nekk école police waxoon nañu ne ay vidéo am na donc lépp lu muy wax na ci bàyyi xel waaye tey àdduna bi gisati nañu ñu futtiwaat leen comme ay nit yu solul yére euh, ñu ngi dégg aussi pas dégg mais xam aussi que suñu frère Pape Alé Niang mi ngi ci situation bu jafe situation bu critique fële ñu ko yóbbu hôpital principal defe naa yéen ñëpp dégg ngeen ko parce que dafa nekk ci grève de la fin bu metti mu amoon nag déjà ay séquelles ci grève de la fin yi passé yi nga xam ne moom la defoon balaa ñuy dem di ko jaayaat doole di ko jàpp donc Pape Alé Niang moom it mi ngi ci situation bu critique voilà yeah I'm on a live uh, uh, mu nekk ci situation bu critique situation bu critique pour àdduna bi yëpp bàyyi ko xel même situation bu critique boobu nekk même situation bu critique boobu la président Ousmane ko nekk li tax ñuy wax rek pour sénégalais yi xam ban façon leader la ñu yor ban façon président la ñu am Sénégal coxorte gi nga xam ne moom moo nekk ci moom maa ngi gis nag sénégalais yi à travers le monde les manifestations se Paris Genève Italie Angleterre New York on en passe ba suba sax am nañu beneen New York te ñu ci woo doomu sénégalais yi à la cent vingt cinquième et la septième avenue septième avenue boo ko déggee moom mooy Adam Clinton Power Boulevard cent vingt cinq ak Adam Clinton Power Boulevard mooy septième avenue donc foofu suba ñu ngi fa joxe rendez-vous deux heures de l'après-midi ñu fay invité sénégalais adduna bi yépp pour ñu fekke ndax tant que Ousmane Sonko mi ngi ci loxo Macky Sall ak ay bandem ak ay délinquant dañuy gatsa gatsa dañuy résister te dañuy maintenir te bii yoon comme niñ leen ko waxee la duñu arrêté xeex bi lu dul Macky Sall moo ñu abal réew mi parce que après presque quatre-vingts décès des jeunes après presque huit cents détenus politiques Sénégal ñun amatuñu luxe boo xam ne dañuy toog di xaar Macky Sall mu rey ñu ñun ñëpp ba ñu jeex ñii toog seen kër tey sax ndeysaan maa ngi ci waxtaan ak ay jeunes ma mu ne waaw Macky Sall nee na ku mu jàpp da lay toppee mbiru terroriste ma ne ko Macky Sall ku génnul sa kër sax déglu leen li may wax nii bu baax déglu leen li may wax bu baax déglu leen li may wax Macky Sall ku génnul xeex ak moom dina la fekk sa biir kër xeex ak yow waxu mag nag laa leen wax tey maa ngi gis benn vidéo benn influenceur bëgguma ko wone ndax bëgguma ñu sonalaat ko topp comme seen banditisme yooyu ñuy def waaye da ngay gis ne influenceurs yi àndoon ak Macky Sall sax lott nañu fi ñu ne ndax attaqué na leen attaqué na seen internet attaqué na TikTok bi nga xam ne ñu bari ci yéen moom ngeen doon dundee attaqué na ko donc vous avez les mêmes complications que les autres te waxoon nañ leen ko avant nee nañu leen injustice ci benn nit c'est l'injustice sur toute une population te population sénégalaise bi toog mu nangu ñu teg benn doomu aadama injustice day mel ni injustice bi ci yéen ñëpp lañ ko teg moo tax ma ne leen diversion rejetée diversion rejetée tey dégg naa ñu jël benn vidéo di wër waaw jàpp nañu Juan Branco waaw def nañu lii Juan Branco et un citoyen france France dafa bokk ci puissance mondiale yi Juan Branco France la ne woon France mi mu ne woon ci seen biir réew ñemewuñu koo jàpp kooku mi ngi mel ni déglul ma je vais vous donner le Branco mi ngi mel ni xale bu am deux ans bu gis vipère maanaam jaan bi ëpp dangar ci jaan yi mu ne ko tepp jàpp parce que xale bi xamul sax li muy jàpp donc loolu mooy jàpp mu Juan Branco ndax mag ñi ñun duñu jàpp Juan Branco ñun ñi ko xam xam àdduna bi ni mu tëddee xam ne waa ji c'est un avocat bokk ci barreau bu France bu Paris kooku xam nga ne wu am na droit dem fu ko neex ci àdduna bi def ay enquête am gone nag boo xam ne xamul dangaru jaan danger mooy ne waan Branco te jàpp ñun suñu yoon nekku ci bu boobaa yéen lijjanti leen ko yéen ak waa waan Branco ak waa France ak ñeneen ñun li ñu intéressé mooy ñu libérer le Sénégal et il y a huit politique détenus et il y a un leader très charismatique qu'on aime très bien et son nom c'est Ousmane Sonko di ñu divertir jàpp nañu Kumba jàpp nañu Samba jàpp nañu ma Mademba suñu yoon new ci jàpp leen ku leen neex mais ñun dañu fas yéene xeex ak yéen continuer xeex ak yéen continuer xeex ak yéen ba incha allahu rabbi ñu jëlee leen ci bopp nguur gi loolu moo ñu intéressé mais jàpp nañu diw waaw jàpp boo leen jàppee Juan Branco exactement dites-moi Juan Branco exactement lan la def loo xam ne boo ko jàppee wala boo ko jàppul dinañu ralentir ñun ndax bu dee mandat bu dee lii nekk CPI avocat bu ne ci àdduna bi am nga droit dajale ay dossier ay samba boy criminel lii ma lay wan ne ay bandi lañ imaginel yow nit porté la plainte nga jàpp ko teg ko ci kaso bi dama leen di jox benn firnde boo xam ne lii du deñ ñoom yàgg nañu ci lu mel ni procureur bii nekk Sénégal tey Abdou Karim Diop procureur dof bi tur tur bi sax jàpp ma ko vraiment wax dëgg yàlla voilà mais procureur bi dafa am ay ay séquelles ay ay firnde yu ndaw yi ma leen di jox ci moom famille bi mu juddoo dégg naa moom dafa doyadi maanaam comme ay nit yu mata di ñoo nekk ci famille boobu maanaam xel yi yàlla dafa man dafa def ñu manqué reetaane wu ma leen ko nag te kokkoli wu ma leen ko te ñaanalu ma leen ko mais xel bi dafa manqué tuuti comme xel bi dafa doyadi procureur bi seen famille ñoom ñëpp moom xam na li may wax nee nañu ndeysaan ku ko jaay rek la bañ am na sax kaa buñ ma wax ba wax ma ko ci Louga fa mu ne woon pour vous diir dafa xaw a niroog kaa bu Juan Branco bi dañ ko jaayoon téléphone bu ñu sàcc maanaam iPhone bu ñu sàcc léegi iPhone bu ñu sàcc boobu biñ ko ko jaayee borom iPhone bi bi mu traqué iPhone bi dañ ko dem fekk ci loxo procureur bi au lieu mu delloo borom téléphone bi téléphone am daf ko tëj daf ko jàpp dugal ko ci biir kaso bi tëj ko borom téléphone bi de donc loolu moo lay won ne ñun nekkuñu ak ay nit yu intelligent mais loolu Sénégal la ko def sénégalais la ko def coow li bi mu baree Louga loolu moo tax gars yi jëlee ko Louga yóbbu ko Dakar mu nekk fa assistant procureur bi nga xam ne moom moo doon euh, kii fa jógee ba ñu def ko tey procureur général donc c'est pas des gens qui sont intelligents amuñu xel jàpp nañu diw jàpp nañu diw dafa mel ni xale bu am ñaari at ñu ne ko vipère ngi ni jaan bu bari dangar la boo ko laalee da ngay faatu mun ne teppet geen gi jàpp xale bi xamul différence bi donc Antoine Diome amul xel comprendre leen ko xamul sax li mu jàppalan la wa an bu daan ko jàppam ban njëriñ la am lu dul nga bàyyi ko mu ñibbi dëkkam mu gën a tas xibaar yi boo ko dugalee rëbës masiba naaru lay dal la boo ko dugalee ci beneen kaso problème yi mu fay fekk yëpp lay jël bind ko ci livre problème mu Sénégal xawee ko encore mel ni taatu neen enquête yi mu def àdduna bi yëpp xam nañ ko mënul mu waane ba jël enquête bi ci loxoom lu muy def da koy torturer lan lay def da koy tëj ci biir kaso bi bàyyi ko fa France Juan Branco duma na Macron duma jabaru Macron lan nga koy def da nga koy def ci carcéral nga ne voilà dama koy tëj pour suñu cas bi nekk CPI mais CPI ils ont déjà les dossiers et ils vont poursuivre leur enquête et lii ñuy wax ni do you know what that means xam nga lu li li dal Juan Branco mi bu doon ci beneen réew xam nga lu def loolu c'est interférer à une investigation is interfering with an investigation ça c'est un crime déjà nit ku la porter plainte dans un pays normal war a ko mën a laal parce que daf la porter plainte mais Sénégal rek ngay gis on a donné notre pays à des cons à des nullards à des personnes qui n'ont pas de common sense ñoom ñu yaakaar ne lépp lu ñuy def ci àddina wanew la fan nga teg ay doomu sénégalais di jóg di dem France di dem Amérique di dem fu ne ci àdduna bi la mondialisation te doomu français amul droit dem Sénégal dem Mali dem pari dem fu ne loolu foo ko te c'est la mondialisation yow man nga ñëw sama dëkk man naa ñëw sa dëkk d' ailleurs sax diggante Sénégal moom ak France amul visa donc boo génnee nit réew mi téeméeri yoon tant defuloo ko personne non grata am na droit ñëw maanaam da koy suspendre def ko ci say anal ne kii dañ ko déporter refoulé légalement te amatul droit ñëw suma dëkk cinq ans wala dix ans te loolu tamit boo ko defee boo ko jàppaatee ay doomu France France dafa am ay loi dafa am ay juge lii ñuy def ni Juan Branco dina indi benn jafe-jafe déglu leen de benn jafe-jafe diplomatie diggante France ak Sénégal ndax France du Macron rek de Macron moom moo ànd ak Macky Sall di reylu sénégalais yi di jàpp doomu sénégalais yi jàpp Ousmane Sonko loolu Macron la mais nag France les pouvoirs sont séparés le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir législatif est séparé du pouvoir judiciaire Ces trois pouvoirs sont séparés et ils sont très puissants. donc jàpp nañu diw jàpp nañu diw moom buñ ñu ko defal diversion France am nañu fulla ak fayda bu tolloog ñoom dinañu xeex seen xeex te dinañu jooy seen dëj ñun Sénégal pour le moment am nañu dëj bu ñuy jooy le président Ousmane Sonko et huit cent détenus politiques sont en prison dont Juan Branco dañu bëgg sénégalais xar seen tànku tubéy ñu continuer résister résistance bi ngeen di def ci àdduna bi tax na consulat yeeg ambassades yi yëpp tëj nañ leen jusqu'à nouvel ordre ndax ñu ngi préparer benn bu mag moo xam ne Washington la ñu bëgg a dem assiéger ambassadu Sénégal Washington DC te pare leen nag Washington ngeen xaar ñu ndax bu ñu ñëwee fa la ñuy dëkk on va habiter là-bas jusqu'à ce que Ousmane Sonko soit libéré et tous les détenus politiques soient libérés et Macky Sall démissionne bàyyi leen loolu xel dañuy ñëw dëkk dañuy ñëw dëkk si dañuy ñëw Washington DC ci ambassade bi te fala ñuy dëkk ñu nag ambassadeur bi ba Ousmane Sonko ak détenu politique yëpp libéré wu ñii bu ñu yendoo ñii fanaan ñii ñu yendoo ñi fanaan ñii bu ñu yendoo ñii fanaan ñii bu ñu yendu ñii ñu yendoo ñi fanaan ñii bu ñu fanaane ñii yendu ba keroog bu Ousmane Sonko di ñibbi këram ak détenus politique yi yëpp di ñibbi seen kër ndax Ousmane Sonko mi ngi en grève de la faim avec les huit cent détenus politiques kenn lekkul bàyyi leen loolu xel ils sont perturbés la gouvernement de Macky Sall est perturbé xamuñu fu ñuy teg seen tànk fi mu toll nii li ñu am ci diaspora bi mi ngi mel ni tulleeg mal le fépp la xale yi yëngal fépp nag dëkk yëpp y compris Amérique Italie Allemagne Japon Canada la Amérique la la la Sénégalais yëngal te muy lu baax ndax réew moom boo fa nekkee te mu nekk injustice te mu nekk réew injustice danga nga war a doxal euh, injustice ñu ngi leen di woo yéen ñëpp suba suba cent vingt cinq nañ ko def ni tulle ak male suba cent vingt cinq comme tulle ak malle dinañ fa taxaw dinañu xeex ñu continuer xeex di xeex ba géej gi fer continuer xeex ba dugg boîte vocale continuer xeex ba Sénégal am liberté am indépendance bu réel parce que dañu ñaan Macky Sall génn fa dinañ fa jëlee Macky Sall moom ak Macron ak bandeem yi nga xam ne ñoom la ñu yóbbu Sénégal parce que Sénégal nag dama leen di wax dara intérêt français yi bu leen ko bàyyi ginnaaw lépp lu ñu dal ci Sénégal Emmanuel Macron la ak ay mbokkam nañu xeex continuer xeex résister continuer résister seule la lutte libère seule la libère xeex senegal fi ñu toll nii ñun ñëpp xam nañ ne xeex rek moo ñu mën a génne ci guute gi ñu nekk amul leneen nag seule la lutte pour nous amul leneen on va se battre et continuer de nous battre on va se et continuer de nous défendre. On va maintenir et continuer de maintenir. On va résister et continuer de résister jusqu'à la euh, jusqu'à la fin incha allahu rabbi may woo doomu sénégalais yi nag comme ni ma leen koy waxee à travers le monde ngeen continuer participer continuer leen participer continuer leen dimbali sénégalais yi sénégalais yi nekk sur le terrain il faut continuer à participer il faut continuer à participer ngeen continuer dimbali sénégalais yi continuer leen participer continuer dimbali sénégalais yi continuer leen joxe continuer leen génne seen xaalis joxe ku mën a xeex xeex ku mën a joxe xaalis joxe xaalis ku mën a génn ci mbedd mi ñaan nga ñaan ku yor sa kurus kenn ku nekk ci ñun dafa am responsabilité ci combat bi ça c'est le combat pour libérer le Sénégal révolution la révolution tunisienne 27 jours révolution égyptienne 14 jours donc révolution sénégalaise xam nañu nañ mu ngi ci huitième jour te moom Macky Sall ndeysaan dof bi biñ koy avertir cuuneem yi nga xam ne ñoo ko tegoon ci yoon dañ ko newoon ah mbir mii de xale yi bu ñu yëngalee benn fan ñaari fan rek dañuy sonn ñu daal di dellu ginnaaw juumati nañu juumati nañu encore ils ont encore fait une erreur erreur catastrophique ndax bi ñuy tàmbali xeex bi dañu ne woon xale yi bu ñu xeexee ñaari fan bàyyi waaye li ngeen xamul maki our pockets are deep déglul anglais bi ma lay wax our pockets are deep and our kids are motivated and we are determined to get you out power this time bi yoon dañu pare pour jële la ci pouvoir te tant que jëlewuñu la ci pouvoir bi duñu arrêté loolu moom defe naa yow ñi nga àndal vous pouvez vous rassurer man ngeen coqotaan seen ay xel man ngeen foye seen bopp man ngeen wax ay waxi dof loolu yëpp amul problème man ngeen jéem a xuuxal sénégalais yi man ngeen fen man ngeen def lu leen neex mais on va continuer à maintenir à maintenir et continuer à combattre et à combattre jusqu'à la victoire finale loolu defe naa Macky ak ñi mu àndal boo leen defee loolu ci seen i kabeesa rek macha allah xëy na loolu dina am lum leen wa lum leen yombalal parce que bu fekkee ne da ngeen yaakaar ne combat bii combat wu benn fan la ñaari fan benn heure ñaari heure ñu pare ak yéen ñu delluwaat ca la ñu woon continuer la bàyyi nga ñuy toroxal loolu du amati. gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous suba à la 125 et la 7e avenue mardi ñu ngi dem. ci permanence su représentant wu France bu Nations Unies foofu tamit bu ñu fa jógee dañuy dox dem ba ci permanence bu Sénégal 43 ñeenti tali ñoo nekk seen diggante maanaam dañuy dem maison du Sénégal te dinañu dem ci permanence bu France gatsa gatsa nag laa woote gatsa gatsa ñun dañuy xeex ak yéen continuer xeex ak yéen Titi Camara maa ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax a baax. voilà dinañu Sali Diop yéen ñëpp maa ngi leen di fi gis maa ngi leen di ziare je vous vois gars yi yéen ñëpp je vous vois maa ngi leen di ziare bu baax di ziare sama mbokk patriotes yi aussi partout parce que patriotes sénégalais c'est des personnes déterminées et c'est des personnes qui aiment leur pays donc ñëpp patriotes yi yëpp ñu ngi ci liggéey bu jàggi dayoo macha allah tàmbale ko ci Akhenaton Mola Morgan Djidji eh, eh, Kayz Fof eh, BMW booy yëpp à travers le monde Euh, sama frère Assane Diagne patriote yi yéen a ngi xeex yéen a ngi xeex li ngeen man suñu sœurs yi tamit ñu ngi leen di gis sœurs yi ñu ngi leen di gis xale sénégalais yi billaay wallaay tallaay moi vous m'impressionnez ku toog tey sa kër fi mu ne nii heure bi fekk la ngay seetaan vidéo bi xamal ne man yow yaay sama idole moi tu moon mon idole man ku ma ne woon jeunesse Sénégal jeune sénégalais déterminé wu na nii a ah, peut-être dinaa ko questionner tuuti rek mais fi mu ne moom amatuma question ci yéen vous êtes extraordinaire oh sama yeneen leaders yi ñu mel ni ay Ngagne Demba Touré ay Ousmane Diagne yéen a ngi def liggéey bu jàggi doyoo macha allah communication El Malick Ndiaye Pastef suñu sœurs yi tey seetaan naa suñu benn sœur ci assemblée na suñu ay ci assemblée nationale bi ngeen di def liggéey bu jàggi dayoo yéen a ngi def li ngeen waroo ak histoire ñu bari comprendre ñu ne benn doomu aadama ak loxo mënul changer dara comprendre leen loolu mais def leen rek li ngeen waroo ak histoire le rest on le fera tôt ou tard gouvernement Macky Sall bii dinañ ko daaneel dinañu teg loxo ci ñoom Antoine Diome mii ngeen di gis di dof dof lu nii moom ak procureur bi ànd di kannasu kannasu lu nii ils seront arrêtés tôt ou tard et ils seront devant la justice qu'ils on manipulé pour arrêter d'autres personnes donc yéen jarul ngeen di xëccoo ak ñoom yéen def leen rek li ngeen man lii seen wareef def leen ko merci Guy Marius Sagna honorable merci honorable Aïcha Touré moom it mi ngi def li ko li mu man comprendre leen am na ndeysaan benn texte bu ma liir bu extraordinaire ma fàttali ko leen ma fàttali leen ko rek xaw ma fu ma ko liiree nag waaye dama ko fàttali ko ñu ne comment un président illégitime peut dissoudre un parti légitime comme le PASTEF loolu laaj leen ko question président boo xam ne fukki nit yoo gi ci Sénégal boo leen laajee juróom dañ koy daggal ay ndey kooku ban légitimité la am pour dissoudre parti politique boo xam ne c'est des millions et des millions de jeunes ñoo ko topp au Sénégal vous voir à travers l'Afrique donc nañu conscient Pastef is a state of mind man mii tey maay Pastef lii la xel state of mind maanaam xalaat la ngëm-ngëm la mi ngi mel ni nga ne diine loolu doomu aadama manul fexe muuse ka waane muuse ka waane ba génne ko ci billaahi wallaahi tallaahi dinañu toogaat ci ay fan yu néew voire ay semaines yu néew ñu waxaat fii ñu ne ah grand Ousmane Tounkara macha allah on a accompli notre devoir jàpp nañu Macky Sall jàpp nañu Antoine jom jàpp nañu Ismaïla Madior jàpp nañu procureur bu ñu yàlla dimbalee sax man xale yi laa bëgg ñu njëkk a jot ci ñoom balaa ñu leen di yóbbu ci benn attekaay comme sax ñu jàngal leen ay leçon parce que nit bu malhonnête da yàlla daf ko war a xawi suturaam te dara gënul neex xale Sénégal yu njàmbaare yi ne leen mépp jàpp ci seen lox gaa yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous rek suba encore incha allahu rabbi euh, ñun ñëpp ñuy woote Pape Alé Niang il est gravement malade dama leen koy fàttali Pape Alé Niang sa vie est en danger dama leen koy fàttali Ousmane Sonko sa vie est en danger lekkul déjà sept jours voire huit jours donc gars yi ce combat c'est à continuer jusqu'à la victoire finale ñun gat sa gat sa la ñu wax xale yi continuer leen ñoo contacter yéen ñi war a contacter ñu ñu mën a vérifier les vérifications qui doivent se faire te ñu mën leen vérifier incha allahu rabbi je prends mes responsabilités à ma personne. Vous aurez les moyens nécessaires pour faire les nécessaire dans ce combat. nañu fexe lépp lu ñu man ci lu woor rek la ñuy dox nag bàyyil bu kenn jéem a woote fii yaakaar ne xam nañu leen am na patriote yi nekk ci mbedd mi di dóor te sonaluñu kenn mais am na yenn tappalekat yoo xam ne dinañ la woo waa ah, ginnaaw dama bëgg a dem taalifale dama bëgg a dem taalifale waa yónnee ma dara ñu nekkuñu ci loolu